allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wollum xarala gi mooy jaawu jàlloo mbokk yi gannaaw bu ñu santee buur yàlla subhaanahu wa taala nangi julli di sëlmal ci sang bu tedd bi te mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla ci xéewal yam ñuy dottil saa waaye mu xéewalal ñu ñaari xéewal yi nga xamante ne xam na ne dafa bokk ci suñu dund ñu di ko jëfandikoo saa ba tax na mu xéewalal ñu xéewal bu njëkk bi nga xamante ne mooy xéewalu ibaadaat loolu mu beral ko askanu julit ñi waaye mu daldi masale mboolem mbindaafoon jay dukkat ci kaw suuf si ñaareelu xéewal bi nga xamante ne mooy xéewalu nelaw ndax mooy buur bi nga xamante ci mànduteem ci dogalam ci atteem ci coobareem ñépp la bokk yemale ci xéwal boobu ñu naan nelaw ki ko gëm def ki ko gëmul da def ki nekk ci santaaneem da def ki nekkul ci santaaneem tamit da kay def ndax moo ni mel buur bi subhaanahu wa taala waaye ba njëkk bu mu jagleel société julit ñi mooy xéewalu ibaadaat mooy xéewalu jaamu yàlla ba toll ni lañ doon jëf waxtu su néew ci ginnaaw te mu nekk juli mu doon njëlbeenu audience ba julit bi di amak ak boromam ci bés bi nga xamante ni moom la wara songu moom la war a ubbee mu nekk bés bu bees ci bis àddina yey ñëw di jaar di jàll ci dundu doomu aadama jooju ba tax na yow mi di julit keroog bi nga déggee noddukat bi di noddu di tudd màggaayu yàlla di tudd ne mu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg kuddul ci yàlla muy ne mu ngi seede ne yonenti yàlla Muhammad de dëgg la yàllaa ko yónni mu daldi woote woote bu mag bi nga xamante ne mooy fa mu naan kaay leen ci julli julli bi nga xamante ne moo leen di jokkale ak seeni boroom waaye kaay leen ci julli bi nga xamante ne mooy audience bi nga xamante ne moom ngeen di am ak seeni boroom ci bés bi juróomi yoon waaye kaay leen ci julli bi nga xamante ne moo tax yàlla buur bi tabaraka wa mu bind leen mu daldi ci si teg ba léegi ci wootekat bi bokk na ci li muy woote kaay leen ci texe texe bi nga xamante ne du ngeen ko amee ci fenn du ngeen ko amee ci lenn lu dul ci julli jàkkaarloog sa borom nga am sentiment bu toll ne yaa ngi taxaw sa borom boroom jalla wa amaana bii mooy sa taxawaay bu mujj amaana bii mooy sa julli bu mujj nga am concentration bu toll ni atawajju ila allah nga am xushu alxudu nga am tiitaange ak ragali yàlla ak toroxlu bu toll ni dowtoo yëg dara lu dul sentiment ba ngay am sa diggantek sa borom waaye mboolem xeetu ndomb tànk yañ la gàll won nga ne yàlla ne loolu yépp ko ab jaam bu doyadi moo taxaw sa kanam nii ku la gis ci toroxlu ku la gis ci suufee ku la gis si wàccee sa bopp mu xam ne kii moo ngi concentré wu ci kanamu boromam ci anam ji nga xamante ne borom bi rekk subhaanahu wa taala moo jar mu mel melokaan binimel ni daldi ci baat boobu màggaayu yàlla mu daldi teg ci kaw màggaayu yàlla ne julli di moo gën nelaw bi ngeen di nelaw mu daldi si teg ne yàlla gën naa màgg lépp te amul dara li fi nekk lu dul yàlla moom nga dégg noddukat bi di nodd noddu jamonoy fajar loolu muy nodd nag loolu mooy sa woote bi mooy sama woote moy woote képp kuy déglu waxtaanu fajar bi fii ci Rewmi FM ci waxtu wi waaye mooy woote ba nga xamante ni képp ku dégg noddkat bi di noddu boo ko yëgee ak boo ko yëgut lii mooy convocation lii mooy réponse ba nga war a dem wuyu waaye li juuti loolu nag yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu baaxee ne ñu képp koo xamante ne bëgg nga bokk ci ñi ma war a ràmm keroog bés pénc bi nga déggee nodd bi noddukat bi di jibal ci waxtu yu julli nang ci tek lan roo nii la wax masalan boo déggee noddkat bi naan allahu akbar allahu akbar yow da nga war a wax allahu akbar allahu akbar bu noddkat bi ne allahu akbar allahu akbar yow da nga war a wax allahu akbar allahu akbar bu noddkat bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah yow da nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah bu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah yow it nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah bu noddukat bi ne ashhadu anna muhammadan rasulullah yow it nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah bu waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah yow it nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah bu noddukat bi ne hayya ala salaa nga la hawla wala quwwata illa billah bu waxe hayya ala salaa nga ne la hawla wala quwwata illa billah bu noddukat bi ne hayya ala al falaah nga la hawla wala quwwata illa billah bu hayya alal falaah nga ne laa hawla wala quwwata illa billah boo déggee noddkat bi ne alsalaatu xayrun min annawm nga ne ba léegi laa hawla wala quwwata illa billah waxe alsalaatu xayrun min annawm nga ne laa wala quwwata illa billah bu noddkat bi àggee fu muy allahu akbar allahu akbar yow it nga ne allahu akbar allahu akbar bu noddkat bi ne laa ilaha illa allah yow it nga ne laa ilaha illa allah allahumma rabba haadihi dacwati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayidina muhammadin alwasilata walfadilata wa darajatan caaliya rafiica wa baashu allahumma maqaaman mahmuudan liti waadtahu innaka laa tuxlifu lmiaad boo ci tegee radaytu billahi rabba wa bi islaama diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa wa rasula baax na boo ci tegut loolu tamit baax na waaye ñaan bañu ñu njëkk ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp wax ñaan bi gannaaw bi nga toppee noddukat bi ba mu jeexal neena na yow nga sama ram keroog bés penc wallahi mbokk yi ñaata taala ñu dégg noddkat bi di yëkkati baatam di nodd juróomi yoon ci bés bi géemuloo jàng noddkat bi lamuy wax géemuloo koo déglu géemoo koo dégg la yenent bi ne bu bi noppee ci nodd bi na ñaan-ñaan bi géemoo koo xam géemoo koo jàng waaye mokkal nga lu gën a lii lañ la wax nii mokkal nga lu gën a jafe lii lañ la wax nii yaa ngi dugg ci li gën a jafe lii lañ la wax nii yaa ngi géemu dugg li difisil par rapport ak liñ la wax ni lii boo jëndee sa téere nga jege benn ustaas ne ko dama bëgg nga jàppandalal ma ma jàng la yonent bi ne képp ku dégg nodd na ko wax une semaine nga mokkal ko si giiru dund boo déggee noddkat bi yëkkati allahu akbar allahu akbar nga daldi di toppandoor noddkat bi ba keroog muy jeexal nodd bi nga daldi ñaan ñaan bi cinq fois dans la journée juróomi yoon ci biir bés bi noddukat bi la mu nodd nga dégg ko nga daal di bàyyi la nga nekkee di def nga di ko toppandoor ba mu jeexal nga daal di ñaan-ñaan bi moone ne yow bu dee yàlla dalaa wërsëgal nga dund cinquante ans juróom fukki at bés bu nekk bu noddukat bi noddee nga toppandoor noddukat bi buy jeexal noddu bi ngay ñaan ñaan bi ñu di la ne bokk nga si ñu yenentu bi wala ràmm keroog bés pénc allahu akbar mbokk yi lii neexul ah kañ lii gënul ah kañ kon ana lu ñuy xaar pour mokkal ñaan bi gannaaw bu noddukat bi daanelee nodd lu tee ñuy géem a roy noddukat bi ca la muy ñu di ko toppandoor comme na ko yenentu bi jàngalee comme nuñ ko jëfee ci waxtu su ginnaaw waxtu su néew ci ginnaaw ñu toppandoor noddukat bi ñuy baamu la muy wax bu àggee xayaala salaa ñu ne laa hawla wala quwwata illa billah bu àggee xayaalal falaa ñu ne laa hawla wala quwwata illa billah bu dee fajar la bu ne asalaatu xayru min an naw bi léegi ñu ne laa hawla wala quwwata illa billah bu jeexalee nodd bi ñu daal di ñaan ñaan bi ñu ne allahumma rabba haadihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayidina muhammadin alwasilata walfadila wa darajatan aaliya rafia allahumma maqaaman mahmuda allati waatahu innaka la tuxlifu almiaad lu ñu mokkal li nga di ko jàng phrase par phrase nga di ko jàng lettre par lettre ba keroog di ko mokkal waaw lépp lu waaye góorgóorlu yàlla jàppandalal la ci nga leneen lu dul dëgg xataa ci caaxaan ndax yow loolu nga opté loolu nga mën waaw xoolal ñuy tëbb ko dal ni leen yàlla di may wér yaram yax yi dañuy dëgër ñuy tëbb ko dal di dem ko ñëw waaw parce que loolu lañu ñu opté pour nekkee ko yàlla jàppandalal leen ko waaw kon yow boo nekkee ci dëgg nga nekk ci li leen njëriñ ci sa diine fii ci àddina nga am résultat bi keroog bés pénc lu tee yàlla du la si jàppale dala siy jàppale kañ dala siy jàppale bu baax a baax ba tax na nañ leen bàyyi xel loolu naam loolu mooy njëlbeenu xéewal ba ñu yàlla xéewalal ci bés bi ñaareelu xéewal bi bokk na ci lañu yàlla xéewalal mu doon xéewalu nelaw nelaw bi nga xamante ne képp kuy boroom xol yàlla jagleel na la ko nga di ko def mu nekk xéewal bi nga xamante ne dakaa ci ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ci malay ci njanaaw yi ci lépp la ko yàlla séddale mu ne ñu ci téere bi ne wa jaal naa maa leen defal nawmakum nelaw ba ngeen di nelaw subaatan ngeen di si faggoo dalluwin bi nga xamante ne du ngeen ko amee ci leneen ci dulut nelaw xattaa léeg-léeg nga gis ku yaramam suttanti ci coono ci fatiguement ñu ne ko da nga war di nelaw léegi-léegi nga gis ku la ne man dama ñàkk nelaw waaw ku la ko wax yow miñ ko wax dangay am jaaxle yow da ngaa ñàkk nelaw ah yow yow kon maa doo dem kiru docteur xool waaw kañ parce nelaw dafa bokk ci waaw boo ko manqué rek leneen mooy manifesté wu lu méngoowul ak sa wér yaram kon nelaw bu ne bu ñu bu yàlla ne maa leen defal nelaw mu nekk dallukaay bi nga xamante ne du ngeen mun a amee dallukaay bu mel ni nelaw ci leneen walla feneen fudul ci nelaw lii mooy la koy dëggal tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu kon xéwal boobu di nelaw képp ku lu képp ku ko yàlla yenkeewal boo jógee ko ci nelaw jooju di kado bala yàlla jox comme xéwal la nga war a njëkk a def mooy nga sant yàlla sant yàlla jooju nag du yaa koy créer du yaa koy xalaat déedéet yàlla suñu borom moo ko xamal yonent bi mu ne ko jaam bi bu jógee ko ci xéwal ba ma ko xéwalal di nelaw na ma sant na tudd sama cellaange dama delloo njukkal yonent bi ko moo ne képp kuy julit boo yeewoo ci nelaw nga war a njàng ñaan wi askar ya yonentu bi andi salaa sallam mu ne ñu ñaan wi de ay baat la jullit bi war kaa tudd jamono bu mu joxe waxtu yi nelaw ba ko yàlla xéewalal moo ne ñaan wi mooy da nga war a wax alhamdulillahi alladi mboolum xeetu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma delloo sama ruux baadama amatana gannaaw bu ma faatee ci nelaw ndax ñu ne nelaw dee bu ndaw la kon yàlla dalaa faat ci nelaw yéguloo gisuloo fekkewoo woo xamoo nga absenté carrément kon ki la defal lii ñu tudd ni bu la delloowee sa ruux ba nga gis nga yëg nga xàmmee nga dégg kon war nga kaa sant war nga kaa nangul ne mooy sa buur waaw nga ne ko ba adama amat na gannaaw bu ma faatee ci nelaw te nag wa ilayhi nushur bu ñu deeyee diggantaan ci yàlla la ñuy dellu duñu dellu ci kenn duñu dellu fen fu dut fa yàlla kon loolu mooy ñaareelu xéwal ba yàlla buur wi tabaraka wa taala jagleel doomu aadama yi rawatina communauté julit ñi yow mi di jullit boo defee xéewal bala yàlla xéewalal nga jëflante xéewal jooju boo ci noppee danga nga war a sant yàlla waaw nga war a sant yàlla ci xéewal bam la xéewalal nga nelaw nga sant yàlla ci xéewal bam la xéewal bi nga dégg noddukat bi ne julli de moo gën nelaw bi ngeen nekkee gannaaw bi nga joxee julli woowu ci waxtu yi fajar bi yonent bi salaa sallam ci xadisu anas bin malik radiallahu anhu nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa qaal man salla alayya salaatan waxidatan képp ku julli ci man yonent bi nga ne allahumma salli ala sayidina muhammad benn yoon yonent bi nee na sallallahu alayhi achara salawaat yàlla suñu boroom dina yokk sa ba mu toll fukki yoon waaye du yem loolu benn yoon boobu nga julli ci man nga ne allahumma salli ala sayidina muhammad yàlla dina la ko multiplier mu nekk fukki yoon yàlla dina la multiplier tiyaabo jooju ba nga am fukki tiyaabo waaye du yem foofu wa xuttat anhu achara xatiaat dina la effacer ay bàkkaar ya tollo ni fukki bàkkaar wa rufiat lahu acharo darajat buur bi yàlla tabaraka wa taala dina yëkkati sa daraja bi mu toll ci fukkeeli daraja ci kaw waaw yàlla dina yëkkati sa daraja fa moom ba mu tollu fukki martaba waaw dina la yëkkatil benn yëkkatil sa daraja ñaareelu étape yëkkati sa daraja ñetteelu étape mu di ko defee noonu ba juróomi étape mu di ko jàppee noonu ba juróom benn juróom ñaar ba juróom ñeent ba fukk yàlla di yëkkati sa darajay martaba ci étape par étape bi mu toll ci fukki daraja ca kaw waaw lala ko yóbbee benn yoon ba nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin waaw nga julli ci yonent benn yoon yàlla multiplier tiyaabo boobu nga génnee sa gémmiñ ba mu toll fukki yoon waaye du fa yem mu effacer la bàkkaar ya nga bàkkaar mu xool fukki yu ci gën a garaaw yàlla effacer la ko mu gome ko waaw waaye du yem ci effacer la say bàkkaar waaye buur yàlla dalay yëkkatil say daraja fa moom yàlla sa daraja di gën a yëkkatiku mbokk yi imagine leen benn yoon rekk nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin yan na yàlla yokk xéwal ak mucc di ko sotti ci yonentam di muhammad sallallahu alayhi wa nga wax baat bi benn yoon yonent bi képp ku wax baat bi benn yoon sallallahu alayhi asara salawaat yàlla dina la ñaanal yàlla dina yëkkati sa daraja dina yëkkati sa martaba yàlla dina la effacer say bàkkaar num lay ñaanale day jël baat boobu nga wax ne allahumma salli ala sayidina muhammad yàlla dakoy soppi mu nekk yiw waaye mu di ko soppi mu nekk yiw ba mu toll fukki yoon ñu tegal la loolu à côté ñu bind fa sa tur ñu ne yow jaamu yàlla diw sàngam yaa julli ci yonent bi benn yoon yàlla benn yoon jooju jël na ko multiplier na ko ba mu mat fukk ñu tegal la ko ñu ne la yaako ko moom yàlla ne ba léegi dama kay effacer fukki bàkkaar yi nga xamante ne jëf na ko fukki bàkkaar yoo xamante ne war naa ka ci mere te mere naa ko ci waaye benn yoon bu mu julli ci sama jaam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax na effacer naa ko fukki bàkkaar allahu akbar yàlla ne déedéet du ma ci yem de waaye damay yëkkati darajaam yàlla ba mu toll fukki étape waaw fukki étape mbokk yi ñu ñaanal la fukki yoon ñu effacer say fukki bàkkaar ñu yëkkati say daraja fa yàlla ba mu tollu ci fukki martaba ci étape yu gën a kawe fa yàlla ñu ne la lii lu la ko yóbbee ba parce danga julli ci yenentu benn yoon sallallahu alayhi wa danga dangaa julli ci yenentu benn yoon ñu multiplier la benn yoon boobu ba mat fukk ñu effacer la fukki bàkkaar ya nga bàkkaar ñu yëkk sa martaba sa daraja fa yàlla ba mu tollu fukki daraja allahu akbar mbokk lii doo am ci fenn fudul ci julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ndax yàlla moo ko dig jaamam moo ko digal jaamam te moom ci jëmmam mu ngi ci ak ay malaakaam bu ñu demee xool ci sotul dinañ fa fekk aaya ba yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi naam inna naka yàlla wa malaikatahu ak malaakaami buur bu toll ni yàlla ak malaakaami yamu tànnal boppam ci gu ci kuréelu malaaka mu ne mook malaakaami ñu ngi jokk di ñaanal yenentu bi sallallahu alayhi wa kon yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu mbokk yi fii nag yàlla woowul n'importe qui yàlla ñu gom yàlla wéetal yàlla nangul ne yàlla mooy seen borom moo di fi yàlla ñooñu la yàlla woo moo mune mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ndax woowu fi yaa ayyuhan naas waxu fi yaa ayyuhal waaw comme nu woowe woowee yeneen woote ci biir bi waaye fi ña soxal yàlla la yàlla woo alladina amanu ñu gom yàlla wéetal yàlla duñ ko bokkaaleeg dara duñ ko bokkaaleeg lenn ñoom la yàlla woote fii mu ne leen yaa ayyuha alladina amanu yéen gom gëm yàlla sellal ngëm yàlla bi wéetal ngëm yàlla bi wéetal yàlla ci turam yu sell yi ko ci jëmmam wéetal ko ci melokaanam raxu leen lenn ci seen xalaat walla seen foogin walla ci anam ba ko gaay di ngin wéetal yàlla nu ko yonent bi jàngale ñi am pas-pas bi ni mel ñoom la fi yàlla woo yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñu gëm yàlla gëm yàlla bu toll ni na ko yonent bi jàngale sallu alayhi na ngeen jokk ci moom na ngeen ñaan na ngeen jokk ci moom na ngeen ka ñaanal waaw wa sallimu taslima su ko defee liila la yàlla buur bi tabaaraka wa taala digal ña gëm ne na ngeen jokk ci yonent bi anam bi ni mel bi nee képp ku def loolu benn yoon dinañu jël sa benn yoon boobu multiplier ko ba mu mat fukki yoon ñëw ci bés bi waxu mbóosóor ba nga nekkee waxu caay-caay ba nga nekkee waxu folklore ba nga nekkee waxu naq sa xanang ba nga nekkee moo ne mënoo changer wax yooyu ak di julli ci yonent est-ce que munoo bàyyi wax yooyu mooy ci salaatu ala nabi ngay julli ci yonent bi li si gën a gàtt nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin lii munoo ko lii gàtt na yomb naa wax jëlal lii mu nekk sa tuflitu gémmiñ jëlal lii mu nekk sa guuróowu gémmiñ jëlal lii mu nekk sa singomu gémmiñ nga di ko yëy nga di ko mocc nga di ko nga ko waaw kañ waaw nga di ko taqamte ko jëlal salaatu ala nabi mu nekk may sa gémmiñ waaw ku la gis sa tuñ bi di pat pati looy wax allahumma salli ala sayidina muhammad allahumma salli ala sayidina muhammad allahumma salli ala sayidina muhammad ngay épargner sa bopp yiw du kenn du mun a xayma ñuy effacer say bàkkaar ya nga xamante ne seytaane dala koy jëfloo waaye ëllëg bés ñu won la martaba ju toll ni ñu ne la liggéey yaa ko moom nga ne lii kaña ñu ne la da doon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa allahu akbar mbokk yi moo ne lii neexul ah moo ne lii jarul jàng ah kañ moo ne lii jarul def ah kañ kon mbir yaa ngi nii nañ leen bokk géem a gëstu suñu diine ad diin yusur diiney islaam dafa yomb yomb joo xamante ne wallahi comme na ko boroom xam-xam yi di waxe rek ñu ne lépp lu diis bokkul ci islaam xanaa du am na ku ko fa keree xanaa du am na ku ko fa juux waaye islaam ba wàccee ci yàlla yenentu bi andil ñu ko sallallahu alayhi wa sallam mi ñu ko andil moo ne ci maana hadis ad diin yusr diine bii di islaam yusur dafa yomb yàlla daldi di feddali loolu ci alqur'an mu ne ñu laa yukallifu llahu nafsan illaa usaaha yàlla tegul bakken dara lu dul lu xejoo mu daldi ko feddali ci benen aaya mu ne ñu yuridu llahu bikumul yusur wala yuridu bikumul usr yàlla lu mu namm ci moy lu yomb namu ci yeen dara lu jafe wallahi yàlla boo ñu waxutoon sax namu si ñun lu jafe xanaa boo yemee rekk nga ne ñu namuma ci yeen lu jafe lam namm ci yeen mooy yomb wallahi xam nañ ne namu ci ñun lu jafe voilà moo tax mu ne ñu ci suratul baqara ci aaya weeru koor mu ne ñu yuridu llahu bikumul yusr yàlla lu mu namm ci yeen du lenn lu dut lu yomb wala yuridu bikumul usr yàlla namul ci yeen lu jafe kon bu dee yonent bi daf ñu ne addiinu yusr alquran nee nañu yàlla lu mu namm ci yen moy lu yomb kon dëgg la yow jullit bi ana luy yenu lu diis lu toll ni la borom diine bi ne lu yomb la moo la nammal ki mu ni tamit ne ñu lu yomb la leen yàlla nammal ana li ngay yéenu lu diis yow kon jaru ko kon mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi nara jébbal béréb bi ña war a joxe xibaar ñu war leen jébbal béréb ba ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana yàlla ñu yàlla boolee ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet waaye dañuy jëfee la ci gën a jekk amin ya rabbal alamin nasaluka ya allah an taxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا ربي آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا ربي احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu